bis bi xoolandoo nañ àndandoo ak fi sëñ bi war a nekk ak lépp lu fi aju ci luñ fi war a yokk ndax am na équipe bu jiitu si woon démb mooy ñoom Mourtala Sey waaye tey dañ doon ñëw rek ànd ak ñu jóge ci kër sëñ Amsatu ñu xoolandoo li fi li fi war a dolliku ci lañ xalaatoon waaye lépp dëppoo nañ ci ak waa mu xaddamaat xalaat nañ ci xalaat yoo xam ni yaakaar nañ li ci des dañuy complété rek waaye lépp alhamdulilahi rabbil alamina wal tudxil muslih